Euh, communauté sénégalaise bi fi nekk bëriwuñu euh, euh, nombre bi presque 260 la donc ñu ngi yëngatu ñu ci ëpp ci sport la ñuy yëngatu et puis am nañu tamit ay ay ay ay ay techniciens yi fiy liggéey am nañu ay pilotes am nañu ay étudiants yi fiy liggéey ay étudiants encore ñi fi nekk di liggéey ñi bëri ñu ngi liggéey tamit secteur privé bi waaw donc nag am na ci ñoo xam ne ne ak seen i famille ñoo fi nekk ñu ngi ci jàmm mun naa ne ne sénégalais. Euh, Sénégalais ñu ngi sant yàlla amuñu ay jafe-jafe te ñu dal lañu ku nekk yaa ki xëy ci liggéeyam yaay xëy ci sa liggéey ki nga xam ne ne tamit lu dul loola euh, kuy jàng yaa ngi jàng yi et puis euh, problème yi ñu am te loolu yàlla dafa jaam ko problème ay ay document la ay passeport ak yooyu yooyu tamit presque yàlla def na bi ma ñëwee de presque depuis daaw réglé nañ ko féete na boor le, le, le ministre du travail bu Qatar yitteewu na ko ñun tamit yitteewu nañ ko président ci boppam yitteewu na ko lool lool lool parce que laaj na ma ko euh, boo seetee yenn réew yi nga xam ne ne am na yoo xam ne ne presque boo seetee yu ñuy bëgguma tudd ay tur yoo xam ne ne ci ñoo ñoo ñoo dend ñoo xam am nañu ay 3000 euh, travailleurs yi fi nekk am na pays yenn pays Afrique yoo xam ne ne dem nañu ba mille ak yu mel noonu donc nag ñun boo gisee nombre sénégalais yi tuuti fii mooy ñàkk am ñi fi ñëw di liggéey mais nag fii kenn du du fi imi du fi immigré comme immigration bu ñu xam ku fi ñëw ci lu leer ngay ñëw euh, ñi fi nekk sax déjà bu dul ay sportif dañ fi jàngee pare euh, ñu ñu ñu ñu jël leen ñu fi liggéey wala ñu ne ñu jóge Europe wala jóge feneen ñëw am seen i diplôme di fi liggéey donc nag ay liggéey liggéey euh, clandestin waaw clandestin non non loolu amu fi léegi le ministre de de travail waxtaan na ci ak président donc euh, pour ñu jéem a seet effectivement am nañu dossier boobu waaw dossier boobu dem na ba ratifié nañu def nañu lépp assemblée waaw euh, am na nag fu mu taxaw euh, am na fu mu taxaw ci lu ko lu gën a indi tuuti jafe-jafe balaa pour pour pour loolu antu mooy benn problème communication làkk bi donc fii réew arabe la te gis ngeen anglais bi la ñu ëpp lu ñu fi jëfandiku. français bi demeewul noonu loolu benn ñaare bi soriwaay bi soriwaay bi tamit buñ ko seetee mooy que marché bi euh, indien yi ak ak même bu nekkee africain yi ci nekk de amuñu problème transport pour jóge fii dem seen dëkk day yomb lool euh, donc euh, beneen point boo xam ne ne loolu ci côté technique ci seen diggante ñii am nañu système bu ñuy liggéeyee mooy lenn ay bureau la ay ay entre ay bureau yoo xam ne ne yu spécifique ci wàllu liggéey yu mel noonu seen i naataango la ñu war a am Sénégal waaw euh, Sénégal nag foog naa ne ñoom am nañu beneen cadre bu ñuy liggéey mu xaw a mu xaw a wuute tuuti loolu nag moo moo xaw a indi tuuti rupture mais nag euh, ci waxtaan ci suñu autorités yi ak fii ñu ngi ci ambassade bi tamit mu ngi ciy xëy di ci gontu donc yaakaar nañ ne dinañ ci am mën a am solution loolu dul yàgg ñu am fi nombre bu bëri ay sénégalais ñuy liggéey nga xam ne ne dañ fa dañ mën a faj seen i aajo ak seen i aajo njaboot.